بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara di leen xamal ni waa Grand Prix Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul international Euh, ñoo defoon délégation tey ñëw fii seet si waa Masalikul Jinaan ci njiital jëwrin alhaaji Mbàkke Fay ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp sëñ Cheikh Ball Sam sëñ Abdou Khadir Fall sëñ euh, sëñ Ali Wañ ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi fii ci Masalik euh, ñu ñëwoon tey nag ngir waxtaan ak ñoom ci événement bu am solo bi nga xam ne moom la Grand Prix bi di waajal muy journée de sensibilisation et de information boo xam ne euh, bëgg nañ koo amal fii ci Masaalikul Jinaan ku ne xam ne Masaalik li mu représenté ci yoonu murit ak li mu représenté ci lislaam ñu fopp xew-xew bu am solo indi ko fii fës ko fi yéene amale euh, waxtaan ci ak jëwrin mu jox ci ndigal euh, mboolem ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur am ñoom la àndal liggéey bi jox na leen digal ci ñu ànd ak ñun euh, ci cérémonie boobu ba nga xam ne dinañ ko amee ni nga xam ne noonu lañ ko bëgg alhamdulilah tey nag ñu doon waxtaan ak ñoom ci taxawaay boobu ak organisation boobu nan lañ ko war a euh, doxale yàlla dogal na waxtaan wi macha allah juboo nañ ci kàddu yi tënk nañ ko ci euh, ay réunion yu ñu war a amalaat ngir dugg ci yenn détails yi waaye li ci am solo rek mooy Masalik ubbi na ay buntam Euh, ñi fi nekk itam euh, yaatal nañ ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ngir xam ne euh, lii ñu fiy def mooy li nga xam ne moom la barab bi yellool ndax barabu Serigne Touba kat bu ñu ko waxee ñu ni alxuraan lañ fay jàng Serigne Touba lañ fay waxtaanee ak alxuraan ay gone yi mokkal alxuraan lañ fay teral loola ñoom wax dëgg yàlla def nañ seen warugar kon nag waa Grand Prix képp ku ci bokk fu waaye mën a nekk ñu jóg takk bu baax a baax ba nga xam ne. Euh, cérémonie boobu ni euh, mu am ni nga xam ne noonu la war a amee réussite bi nga xam ne moom la yellool Serigne Touba ak dayo bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ñu boole ko alxuraan tudde ko ko ah ku ne xam na ne xew-xew boobu am na dayo bu rëy rëy boo xam ne ñi ko yëkkati am nañu aw sas kon nag nañu góor góor lu taxaw bu baax a baax a baax xam ne daal lu ci manquéte ci ñun la waaye waa Masaalik moom seen jaan wàcc na da ubbi nañ seeni bunt nongu nañoo dalal gan ñi mboolem loo xam am nañ ko expérience xam itam partagé nañ ko ak ñun kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax tàmbalee ko ci jëwrin ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla xew-xew bi ñu dugg ci ci jàmm ak salaam te génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu am ci ndaw ndam loo xam ne kawe na suñu jot suñu lépp te lépp nag sëriñ bi nangul na ko ndax moom lañ ciy liggéeyal kon Cheikh Abdou Khadir bisimilah. donc salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ko tàmbale di ñaanal sëñ Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi te te wér di am ay kàddu cant rek ci jotaay bi ak euh, seen ñëw gi fii ndax ni ko waxee rek mi ngeen ñëwee ba waxtaan ak jëwrin Mbackiou si lañu jox ndigal ne nañoo ànd ak yéen ci liggéey bi fexe ba bés boobu nga xamante ne yéen a ngi ko jagle alxuraan te tuddee ko sëñ bi ñu fexe bés boobu ngeen amee ko ni ngeen ko bëggee rek ba nga xamante ne ci wàllu organisation bi ñu ànd koog yéen ba ngeen mën a peeg organisation bi ba àdduna bépp xam ne defee ngeen ko foo xamante ne fu am solo la fu am taxawaay ci yoonu murit la waaye fu am taxawaay ci diine la ndax ni nga ko waxee daanaka masaalik moom loolu ci mooy ci objectif première am bu ñu jógee ci wàllu julli julli euh, di fi def ay activité yoo xamante ne day jëmmal alxuraan day jëmbal yoon wi di jëmmal liggéeyu sëñ bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy gàmm yi ñu fiy def donc ci taxawaay boobu rek la am ba nga xamante ne dañ ciy sant yàlla bu ngeen jëlee activité bu toll nii mais xalaatu leen fenn fu dul ñëw defee ko masaalikul naan kon loolu ñu ngi leen ci sant ci turu jëwrin Mbackiou Faye waaye ci turu également imaam Basirou Lo ak euh, kilifa masaali yi nga xamante ne buñ ci tuddee alaaji Samba jaw tudd ci sëñ Cheikh Balla Samb ak euh, sëñ aliwañ Wañ ak euh, sëñ Modou Mbaye Samb daanaka tudd nañ ñëpp rek ndax ñooñu ñooy kilifa yi ñoom ñooy suñuy kilifa ba nga xamante ne incha allah ni nga ko waxee donc tey euh, réunion de prise de contact la woon boo xamante ne ñaari structures yi ñoo doon waxtaan ngir bu ñu fi jógee mën a teg maintenant commission yi ba nga xamante ne ci wàll yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu euh, organisation bi jëm ci wàllu collation jël jëm ci wàllu hébergement jëm ci wàllu restauration ak ci wàllu sécurité bi ñu fexe ba jël vraiment. Euh, lépp li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu yooyee ñi ko séq mën a waxtaan ba nga xamante ne buñ ci jógee rek bu bës baa képp ku nekk li nga war a def boo ko defee rek organisation bi mën a jaar yoon donc loolu daal moo doon solo waxtaan wi tey ñuy ñu leen di sant te ni nga ko waxee rek ñuy ñaan yàlla ñu ñu am ci ndam ndam ndam ndam loo xamante ne daal eh, dina doon ndamu sëñ bi waaye dina doon it ndamu lislaam waaw sant nañ leen bu baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء